Pastef falul leen peuple bi moo leen fal nañu dindi identité wu parti te nekkal fi askan wi moo tax ku ci Ousmane Sonko jox nga tekki sa ndomba tànk ci parti instance parti bi man tey ñi may waxee su fekkee ne tey dama jëroon benn ndomba tànk ci ci ci état bi mais sama sama sama sama sama kàddu day changé tey ji kilifa mi ñu fal ak bu ak kilifa mi toog ci daan def chronique mais du benn nit dof mi ñu fal ak nit dof mi doon rab di dóor ay bagages mais bokkul. non bu ma ne di dóor ay bagages. rappeur di di di kaas. di dóor ci taabal ji. mais tey nit dof bi dafa nek ko xamantene dafa nek ci appareil d'état état ci régime di ko doxal mënoo nek nak ci bir euh, euh ki bi ba paré ëlbatik di ci xëpp suuf yow posture bi ngay am en tant que. euh euh euh, euh, euh Partner bo xam militant simple nga bokul ak posture bi nga xam bo ko yoré da nga nek ci appareil état lolou motax polémique gu Cheikh Oumar Diagne bi am ampleur na wax ta amul dayo bi mu am ni li tax mu am dayo bi mu am c'est posture bi mu nek ci état ta amna na ñoo tay duñ ñu may dara lepp lu fi nit wax wala parce que sen objectif yépp su booba ngoon mooy nan lañu diaboliser ba yàqal régime bi à tout prix à tout prix bu doon sen sago sax tayo tay da ngay dégg rek dégg Ousmane Sonko ki ñay ngay reyante ko fay wax motax ñu tejj ko yaa ngi may dégg ak yeneen ak yeneen yàqkat yi moom duñ fi mës a jóg loolu moo tax nag képp koo xam ne patriote danga nga wala doo patriote wala nga nekk ci appareil état bii na nga xool sa toogaay xool sa doxin xool sa waxin. na ko def jëmale ko ci askan bi parce que gis nañ ni jamono ji mu ngi euh, Medina Baye te bu fa jógee dina dem ci yeneen euh, këru kilifa diine lu ci mel ni Tiwaawoon ak ñoom yi seen pour yow ban dénkaane la war a jox kilifa diine pour ñu def ko wala boog ñu ñaan ci askanu Sénégal parce que guddi yi ñu toll soxla nañ ko te xam nañ ni euh, kilifa diine sénégalais am na ñu baat am nañu aussi dayo bu nga xam ne ñu ngi koy incarné ci ci ci ci Sénégal. ku ne xam nga ne Bassirou Diomaye nitu kerse la. Mm-hmm. la. te nit ku bëgg dialogue la réew mi di Sénégal bu doon doole mooy tax ñu fal ak du folli ñoom duñu ñu falu du ñu folli ndax ki leen fi nekkoon moo leen ëppoon doole téeméeri junni yoon ëppoon leen ay moyens te askan wi dañ ko jël teg ko teg ko fële le peuple est souverain nañu respecté sénégalais yi. Mm-hmm. man nañ ñëw réew mi lu mu soxla mooy dal. réew mi dafa soxla ay solution pour ñu génn ci crise bi nga xam ne moom la réew mi dafa soxla ay ñaan. Mm-hmm. réew mi dafa soxla ñu déglu. d'accord réew mi dafa soxla instruction. Mhm. réew mi dafa soxla ñu nëpp ko gëmaat suñu bop déjà am na phénomène boo xam ne man dafa maa naqari mooy phénomène boobu ñuy jaay étranger yi ñëw mooy soi-disant lan ay égyptiens. Mhm. ak ay ay ay tunisiens dañuy jël ay ventilateurs ay télévision ay appareils électroménagers dal dugg ci cité yi ak quartier yi surtout ci banlieue bi di ko sénégalais yi.

pour quatre mois sénégalais bi bindu mais bu beaucoup sénégalais sénégalais mu jëloon tey du ko day bañ mais comme qui algérien la wala tunisien la rek ànd naa sénégalais gëmloo ko ne meilleur qualité ventilateur la moom gëm na nañu def souveraineté économique nañu dem patriotisme économique. Mhm. sénégalais balaa ngay jënd ci beneen rationalité jëndal produit sénégalais gis nga français yi que Sénégal du ñu jënd produit bu Carrefour ak Auchan du ñu jënd benn auto. di ko daw oto bu dul oto Peugeot la ñuy jënd duñ dawal Toyota. ak Renault. français Renault lay dawal. buy jëlee station lu mu sori sori sori station Total lay dem dugal fa essence am. Mhm. jënd fa carte. sénégalais esprit boobu la ñu war a am. bitig bi nga xam ne Guinéen bee ko moom balaa ma fay jënd dafay fekk bitigu sénégalais bi am ko ba pare nañu dugal loolu suma bopp yi. d'accord balaa may jënd benn matériel di ko jënd suñu commerçant yi nga sénégalais yi fi nekk di jël ventilateur yi di ko jox. ñoom nañ leen nañ jël seen temps duggaat ci koñ yi contradire ñooñu di leen lebal di ko lebal seen mbokk sénégalais yi comme ni koy defee tubaab naaru Algérie wala tunisien boo xam kenn xamul fu mu jógee bu ñuy indi ventilateur ñu leen koy lebal. Mm-hmm. message bi jàll na kay ah, merci beaucoup damay bàyyi comme que Marie-Jeanne moo ñu doon dégtal résumé bi xewoon ca Mbour mu leeral ñu tiwitu Cheikh Issa Sall moom maire bu euh, Mbour bi vite fait après ñu door a tëj jotaay bi Marie Aïcha nee na moom ki nga xam ne nag maire Cheikh Issa Sall nee le capitaine de la pirogue est mon grand frère. Mhm. nous sommes du même père depuis 1998. il est dans la pêche il avait amené avec lui ses quatre enfants et douze neveux. Mhm. notre famille est décimée moom mu la wax ci li nga xam ne mooy drame bu am fële ca mbo d' kon mu maire bi ak convoyeur bi. ñoom ñoo ay mbokk lañ en fait. Mhm, et ñoom si boppam ñoo gën a nekk ci dëy sax peut-être que ñeneen ñi nga xam ne suux nañ ci. exactement soo xoolee sax moom tam moom bëggoon na kon pirogue bi egg fële fu mu jëm Espagne. Mhm. mais xam nga rek ndogalu yàlla su ñëwee. Mhm. mais ndogal lu yàlla boo gis tam loxooy boroom a nga ca de. Ah, en loolu moom dëgg la. xam nga lii mooy conséquence bi. bu fekkee ne moom si boppam moom borom gaal gi jël na njabootam dugal leen ci biir. gaal gi mu waroon fu mu fu mu waroon dem.

na leen servir d' exemple te te koo xamante ne jàpp nañ la ci ngay def see yi ni moo xam nga jébal sa bopp wala nga parce que dèjà lu mu jébalee tax ñeneen ñu bëri feeñ aussi li tax ñu bëri feeñ te moom xam na ne sax toogu leen sax bu dawoon sax nañ ko jàpp mm. lu mu jébale ni boppam taxul ba ñu dee nar a nar a kii mais am na loi dañu jël daan ñu war daan ñu war am na loi bu criminalisé de. Mhm. convoyeur. Mhm. avant Macky si si ah. Macky Sall. créé nañu benn loi boo. xamante ne le bilan est lourd. benn nit sax. boo ko nëf bu duggee ci géej gi. même avant bilan bi sax acte bi rek sax doy na waar aussi. dañ jël daanuy war teg ko bi nañ ko nañ ko teg comme ni ñu tegee criminel yi. parce que lii lii lii. lii crime la de. crime la. ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakkan. ay plus de cent personnes. Mhm. c'est trop. ma bàyyi la nga tàggoo ñu yëkkati jotaay bi. waaw euh, remercier Marisane ci mm-hmm. euh, information yi ñu indi par rapport ak euh, Mbour te di ñaaxaat encore président de la République Bassirou mm-hmm. bu jógee fii mu dem noonu ci kilifa diine yi comme que day wax ak askanu Sénégal mm-hmm. na wax ak yi na wax na wax ak askanu Sénégal par rapport ak situation bii bu ci noppee na wax tamit ci li nga xamante ne moo di tali bi parce que temps yi accident yi bëri nañ trop li ñu mën a waxee ak ñi nga xamante ñoom ñoo di conveur noonu tamit la ñuy mën a wax ak chauffeur yi ñi nga xamante dawal oto yi ci kaw tali yi am na si yenn accident yoo xamante ne bu fekkee oto bi day jóge garage nar a départ na ko xoolal bu baax a baax balaa muy jóge fii nga xamante moo di ci biir garage bi boo xasee ba tegu ci tali bi xamal ne ay nit nga nga nga nga yeb mais nar a jóge yow yaa ngi xam ne da ngaa sonn wala nar a jël leneen loo xamante ne dafay tax yow sax boo xoolee volant bi doo mën a gis wala bu tawee doo mën a gis li nga xamante ne moo di yoon bi yooyu nañ ko war a bàyyi et comme keroog ñu doon waxtaanee fii ni ñu indi si yeneen solution par rapport ak euh, chauffeurs yi bu fekk ne mun na nekk. Hmm. policiers yi nekk ci ci kaw tali bi wala gendarmerie yi nañu yore ay moyens yoo xamante ne bu ñëw comme ni ñuy vérifier seen papier yi nañu am loo xamante ne nañu mën a ko dañu mën a seet yaram chauffeur ba xam ndax il est ou pas. Hmm. bu fekkee ne il est licite ñu bàyyi mu ne s'il n'est pas licite. nañ tey chauffeur bu fóon parce que bañ a egg fi nga xamante ne moom moo di oto bi bañ a egg moo gën ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñoo nara loru ci ci kaw tali bi donc di jërëjëfal Marisane euh, gërëm aussi euh, Guèye Para tey plateau bi ñaanal leen ma ma am oto waay naa ci mécanicien yow tamit bu fekkee sa oto bi baaxul bu ko dawalaat ci kaw tali xam nga ñuy wax ni mbirum oto. dëgg la moom oto mu ngi mu ngi bàyyi. si si réparation rek. te nga patriote nga waroo dawal waroo nekk di dawal oto yoo. xamante ne bu fekkee bu fekkee sa oto bi pareegul. day xuj bu ko teg ci kaw tali bi. kon loolu naa ko dégg patriote Guèye Paar bëgg na oto bu bees. benn du bu maa ngi ñaan sama mbokk patriote yi wax dëgg yàlla ñu focus. Mhm. ndax ñi gën a métti ci Sénégal mooy nga nekk fi patriote wala nga bëgg Ousmane Sonko. dëgg la dèjà bëgg Ousmane Sonko wala nga nekk patriote guddi yu ñu toll nii <laughs> nag métti goo xamante ne. parce yow moom yow lañ jël def la genre ennemi quoi <laughs> te ñun ci focus ñun ñii. duñ ñu mës a bëgg parce que dañoo yanu seen mbër teg ko ci suuf dóor ko dóor yu metti <laughs> mbër bu gis woon nag te mbër mu amoon doole la léegi nag seen problème mooy di jomaay mooy seen problème mais le problème moi c'est Ousmane Sonko nous que dañuy focus rek ndax buñu Nous rek ba gis Ousmane Sonko suñu xol day may ñaan patriote bu bu gestu bu tontu ndax victoire ba nous te ngeen focus ci législatif yi ñu xol yeen modèle député la nous jël ba ñu suñu assemblée bi fu ñun fu ne suñu objectif ñu romb mais ñom rombu ñuko ñom ba ñi ngi ci élection présidentielle Nous hmm. ba tay ñi ngi euh, mars deux mille lan. Hmm. keroog élection ba 2024 mars 2024. Hmm. ñun romb nañ ko ñun ñoo ngi ci législative bii di ñëw yan façon député yu yu nice. ak yan programme ngeen di war a teg yan programme la ñuy teg. mbirum économie beeg mbirum économie mbirum gaz bi mbirum pétrole bi ak mbëkk mi nga xam ne moo fi nekk fan la ñuy jaar ba booy yëpp toog ci réew mi. Hmm. nañu focus foofu. ñi leen di saaga jël ay seex Omar Diagne jàppal fii laxasaale ko ci mbirum diine yi focus leen